xam na ne anna nga moom liggéey bi kon mi ngi lay ñaanal la Serigne Touba daali woon ne daa waxoon ne anna man waasala nii laa li xarajin dunyawin fa innahu yakunu min al muqarrabin wa anna man waasala li dunya faqat fa inna allaha yukrimuhu ma daama xayyan képp koo xam ne dangaa ñëw ci man te yàlla rek tax laa jukk nee na suñ borom daan la boole ci ña ko gën a jege képp koo xam ne dangaa ñëw ci man ci adduna yi yàlla danaa teel a sa diiru dund kon nag nee na na nga delloo xel te rafet njort te xam ne li nga jëfar sëñ Tuubaa ci dëkk bi liggéey sëñ Tuubaa ba di ko rëccu kenn mësu ko def kon na sam xeet dal ci li sa ndax nee li nga jëf ci dëkk bi lépp gis na ko ndax trente bi nga xam ne doonoon na mébatum dëkk bi nga ko ci muy liggéey bu rëy boo xam ne ubbi nañ ko ci màggal gi ak yeneen yi nga xam ne tudd nga ko léegi mooy forage ñeenti forage yi nga xam ne defaat nañ ko ci biir màggal gi lu wóotewut ak bokkut ak ñetti forage yi defoon daaw ak assainissement bii nga xam ne ñu ngi ko door a tàmbali rawatina nag mbirum nag bii nga xam ne tiitaloon na ñëpp te jaaxal ñëpp keroog bala sëriñ bi jot ci sama kanam te wax na la yëpp ay soxla waaye bii mooy di ci jiitu ndax jaaxal na ñëpp ndax boo dem na bay li wër jumaa ju mu agsi ci waaye fa sansa lu matu juróom benn weer ko xam état ni muy doxee am ne yitte ak taxawaay bu mat sëkk nga ci def ba loolu mën am kon nag ñaan yooyu yëpp boo ko boolee lépp loo xam ne ittee ma wala ittee njaboot gi wala mboolem ci dëkk yoon yi dëkki Serigne foo ci déggee taxaw ca ba def ci na kaw jotam ñaan loolu mi ngi lay sant di la ci gërëm di la bàyyi ak Serigne mi nga xam ne ni mu la ko waxee léegi xam na li nga jëf waxoon na noonu la ma ko waxoon ci làmmiñam xamalal ma président ne ko dëkk bi jëf leen diw fee kenn ku du Serigne Touba kon nag lépp lu mu daa jëfal Serigne ak yoon wi na ko jëmee kanam yàlla def na nga waxal ko sa bopp nee na doo ci am dara lu may am ak nam ak payug Serigne Touba boo liggéey nee na mi ngi lay sant la ñaan ci li sa kanam yaa ko xam yaa xam sa bëgg yàlla na la ci yàlla dimbale defal la ci tawfeex nga amee ko na kaw sa njot asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu